mbokk yi ñuy bàyyi xel ci sans limite ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaa ànd ak ci bile édition spéciale ngeen xam euh, ni euh, ñu ngi euh, teewlu la war a tukkee ca Cap Manuel yéen a ngi sax suñu équipe ña nga fa jamono jile du ñàkk xëy na ñu ànd ak ñoom sax ci jotaay bi am information yu mujj yi ci génn Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay mi nga xamante ni Madiambal Diagne ña xëy. daal di koy annoncé yemu ca annoncé leneen mooy ni tamit euh, président Macky Sall dina promulguer euh, li nga xamante ne mooy loi d'amnistie bi ñu voté barki dimboo Ndiaye euh, ca assemblée nationale boole kook digganteem ak Amadou Ba moom président Macky Sall li ci am dëggantaan ak la ca amul convoqué nañu secrétariat national secretariat exécutif national bu l'alliance pour la république jamono ji ñu ngi ci du ñàkk it ñu taxaw ci également boole kook yeneen ci ay actualité ci jotaay bi. ñu ngeek Ndeye Aram euh, mm. Touré toure Touré bi dafa woor nag macha allah <laughs> loolu moom ah maa koy seede euh, lu jafe la ñuy gis ab Touré <laughs> Touré ah ci weeru koor ah mu mu mu daal di respecté mbir yi waaye tey moom je dois à la vérité de dire ni en tout cas bi ñu <laughs> tàmbalee koor bi ba fii ñu toll moom toure toure bi mu ngi koy assuré mm. ndax man siise siise bi man maa dëggal loolu donc foofu laa yem saw bi nag xaw ma ndax mm. moom ma nga ca am déet waaye daal tey ñëw na. ñu laaj ko mu ne Qatar la bàyyee <laughs> waaw di Pape Moussa Sow également tey tey daal nii la génnee ah jotaay baa ngi nii ñu fas yéene gunge leen ah, fii ak 18 heures ci waxtaane ah, ponk yi nga xamante ni jukki naa ko ndee aram ak yow laay tàmbalee maa ngi lay nuyu di la déwénital bu baax kontaan am ak yow ci jotaay bi. maa ngi lay fay Pa euh, di nuyu euh, suñu Qatari bi Pa Sow ak ñi nga xam ne yëpp ñooy topp sans limite euh, di la déwénati yow itam di déwénati ji ñuy seetaan di jéggalu ci mm. rëcc rëcc yi ci am ak ak nga xam ne yëpp mateewul ñu xam ne nite moo nit moo mel noonu di ci profito xam naa dama dama buruxlu si plateau bi ah buruxlu <laughs> alors di di euh, ah, di bokk ci ndax euh, tout simplement euh, suñu gan hmm. waroon fi teew di Papa Mahawa Diouf coordonnateur bu communication benn Bokk Yaakaar hmm. waroon ànd ak ñun tey ci quinze heures ci émission waaye comme ni ñu ko xamee hmm. yaa ngi koy fàttali léegi ne secrétariat exécutif bu APR le président convoqué donc loolu moo tax mujj ñu def jotaay boobu noonu waaye tey ci actualité ci li nga xamante ne rek ñu ngi koy dégg euh, ci côté pouvoir bi doon na baax ñu mën cee taxaw ak yeneen yi nga xam ne yëpp moo ci moo ci aaju exact euh, la ca des nag dama la baal ndax xam nga waaw euh, Charles Ramadan lañ wax lañu <laughs> pose naa ay histoire ay ay defanteeg ñoom seen parce que li saaneex di wax sama yii sama yooyu noonu moo tax damay noppaloo <laughs> mu ngi noonu merci beaucoup Ndeye Arame Touré alors sunu katare bi maa ngi lay nuyu bu baax Pape Moussa Sow sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sali sadri wasli amri wahlul uqdatan min lisaani yaxsoo xalu yi waaw ah. maa ngi lay nuyu euh, Seydina Ousmane mu sell mi mu sell <laughs> soxna Aram mu sell mu doy waar mi <laughs> euh, maa ngi koy euh, nuyu bu baax a baax a baax mm. di jox sénégalais yi seen wàccuwaay fépp fu ñu mënti nekk ci réew mi ak ci bitim réew mm. Seydina Ousmane waxoon naa la du ma wax ba ci gu weeru koor waaw waxoon nga ma ko de <laughs> mais actualité oblige da nga doy koor gi bi mu tàmbalee ba léegi waxuma ah maa ngi toog jàpp sama ñàmbur. Ah. waaye yow ak euh, sa waa jee. waaw ca pale ba <laughs> bàyyee woo leen ma ci ah bu ma demee ba foog na mbir yi war na sedd rek ngeen andeeti yu doy waa <laughs> kon euh, nga ne lu mu woote tey. waaw secrétariat. exécutif national. kon léegi nangu nañ ne crise institutionnelle amul crise politique moo am. loolu moom au moins maintenant léegi c'est acté. lan moo xew laa bëgg a xam. ma ñun nañ dugg ci biir waxtaan bi parce que euh, ah, dugg nañ ci kay. sóob nga ma ci. waaw kon kon kon xam nga bu njëkk ba liñ doon junjum ñoom. Hmm. liñ bëggoon a gëmloo Sénégalais yi crise institutionnelle la woon. actuellement leer na que ni la crise elle est politique. qui vient du de l'APR. loolu moom mooy ah, dëgg ji. c'est nullement camouflé maintenant qu'il y a un problème entre l'APR et Amadou Ba. te problème boobu noonu beesut. déedéet gis nga euh, APR. Ousmane Sonko euh, moo doon xaw a éclipser wala moom moo doon xaw a anéantir. Hmm. différent yi am entre ñoom ak Amadou Ba. ah oui par oui parce que ces trois dernières années ku nekk xam na ne dañoo consacrer tout toute leur force ci euh, Ousmane Sonko. Hmm. même ba ñuy wax gouvernement de combat sax ñu foog ne soxlay askan wi la ñuy combattre ndekete booba Sonko la ñuy combattre. Hmm. mais combat boobu noonu contre Ousmane Sonko dafa xawoon a nëbb différents yi ñu am ak Amadou Ba alors Amadou Ba aussi n'étant pas petit malgré ses divergences. Hmm. fexe na ba imposer boppam à la tête euh, de Benno Bokk Yaakaar. en tant que candidat. léegi nag dem nañ ba ci biir keroog si teel naa la ay tur. Hmm. am na ñoo xamante ne nëbbatuwuñ Abdou Mbow nëbbatuwul. waaw Mame Mbaye Niang nëbbatuwul Abdoulaye da Diallo même bi muy rallier sax tuddul turu Amadou Ba. waaw et que à ne woon naa la seen différence dafa xóot. ça va bien avant le pouvoir. Mm. alors donc tey jii nii nag ñooñu ñooñu ñoo teg seen lobbying. pour barrer mm. laa route à Amadou Ba c'est ça la vérité. léegi nag euh, lam doon jé lobbying bi lam doon njëkk a jéem a def. Mm. mooy fexe reporter lu élection yi. te loolu dafa am ay ay ay ay puissance yu nekk ci ginnaaw. yoo xamante ni waaye bien sûr euh, te lu gars yi dañoo bëgg waa Qatar bokk ci élection bi maa ngi waa Qatar bokk na <laughs> comme que bokk naa parce que man dama gëm ni président Macky Sall dafa am intérêt ci Karim Wade bokk. ban intérêt. Euh, euh, intérêt waa Qatar. parce que moom it ñoo ñoo ah ñoo waa Qatar ak les pays du Golfe dañoo teg bët suñu gaz gi de. Hmm. bu baax a baax a baax ñooñ dañ cee bëgg. buñ ci bëgg ñoom d'habitude nu ñuy def mooy am candidat seen candidat jàllu hmm. donc il faut que ñoom it ñu jéem a lijjanti euh, cas boobu noonu président Macky Sall bi nga xamante ne moom euh, moo choisir Amadou Ba kenn forcé wu ko waaw parce que boobu Amadou Ba aussi téye na l' de Benno Bokk Yaakaar APR euh, suuf la toutes les toutes les autres entités de Benno Bokk Yaakaar notamment la France socialiste de Benno Bokk Yaakaar muy PS AFP ñoo ñëpp Amadou Ba leen àndal ba tey jii Amadou Ba leen àndal donc APR nekk minorité ci biir entité Benno Bokk Yaakaar parce que n'oublie pas que c'est une coalition de coalition waaw il y a France a Benno Siggil Sénégal dedans il y a Benno ak Tanor dedans il y a d'autres coalitions yooyu yëpp jox bopp Amadou Ba donc l'APR kese kese kese mënul woon dara Macky 2012 sax Euh, APR kese moom moo ànd ak euh, moo àndul ak Amadou Ba. Amadou Ba donc finalement. socialiste yi ñu ngi fa PIT ñu même même d'autres franges de Macky 2012. Hmm. donc kon président Macky Sall moom mënalul woon dara amadu Ba à contre-cœur la ko jël boo xoolee ba muy choisir candidat masque la def. daa sojoon. Euh, waaye wax na rek. te ba tey. waxul non moom wax na. c'est-à-dire pour mu wax. pour candidat bi boobu la ko Moussa Faye non mais lu mu soj soj wax na lu mu soj soj wax na rek. Hmm. wax ji sax gis nga appel. waaw mais dafa waroon na ko def appel pour Amadou Ba. mais comme daf ko cëralee Moustapha Niass rek. cëralu ko dafa yàggul ci xol bi loolu moom moo doon wax ji léegi nag fi mu toll nii conséquences yooyu noonu la ñuy dund waaw mais pas Ousmane léegi këreelu politique ñun lu suñu yoon ñun askanu Sénégal ak suñu date ak suñu élection lu suñu yoon alors ñoom ils euh, seen crise impacté ci élection bi ak impacté ci calendrier électoral moo tax waa waa waa waa waa ahlu Qatar mënu ma leen comprendre parce que fi mu toll nii. te ñoom sax leeral nañ seen taxawaay naaj ñëw li ñu wax nii. wax conseil constitutionnel loolu la ñuy demander à ce que ñu dissoudre ko. waaw mm-hmm. euh, conseil constitutionnel te yaa ngi doon jot démb ak barki démb nii ñu ngi waajal assemblée nationale. Euh, conseil constitutionnel pour nga dissoudre ko foog nga modifier constitution. qui demande la majorité qualifiée. des trois cinquièmes. Euh, nga modifier constitution ci moment boo xamante ne le protocole additionnel de la CEDEAO nee na la waroo laal dara ci règle du jeu électoral six mois avant sauf consensus de la classe politique et parlant de la classe politique les dix-neuf candidats ñu ngi ci euh, dëkk bi di campagne yow à combien de jours aujourd'hui on est ouais, le on est le douze le douze mmh. donc à à à à douze jours oui. le treize le 13 donc à à à onze jours des élections nga ne da ngay modifier loolu c'est manifestement illégal mm. et c'est manifestement anticonstitutionnel dégg ma bu baax anticonstitutionnel parce que le protocole additionnel de la CEDEAO ci bloc de constitutionnalité bi la dugg mm. donc anti anticonstitutionnel kan mooy vérifier la constitutionnalité d'une euh, d'un protocole le conseil constitutionnel ki kon ñoom bu ñu demee andi loi wu dissolution bi. Hmm. buñ buñ attaqué euh, dissolution bi ci kan lañ koy yóbbu ci kiñ di suut. dafa mën nekk dafa mën nekk. dañ gëm yàlla. téyel foofu parce que bokk na ci aussi waa cour suprême nee na dañ àddu ca lañ fa yóbbu ñoom waa PDS vendredi bii ñu jëm. aram génn guñ ci ah <laughs> dañuy jóge ci lii dal ci lee d'abord maa ngi naan oui euh, bu njëkk dañu doon wax ni non amul dara lu xew diggante président Macky ak Amadou Ba mais tey bu ñu demee ba naan ma naan tey président Macky dina leeral. nii dafay jàppale Amadou Ba jël na décision man question bi posé mooy lu xew. Hmm. kon bi mu koy tànn kon lan la woon qu'est-ce qui s'est passé. waaw euh, day am flashback yoo xamante ne mooy ñëwaat. ci suñu hmm. suñu xel. Euh, yu gën a récent mooy conseil des ministres décentralisé bi nga xamante ne nii. président ñëw di toog. quand les gens ont interprété l'image bu mu romb Amadou Ba les gens ont dit non da ngeen nekk di def loo wax loo xam ne mm. maîtriser woo leen ko mm. parce que euh, protocole bi euh, ni mu tëddee mm. ñoom gisante nañu minute d'avant bi nga xamante ne mu ngi war dugg ci salle donc benn problème amu si ñu gis euh, ci quotidien de la place yi également moom amado Ba ci ci li ñu nekk muy campagne bi mu convoqué directoire de de campagne Euh, pour ñu ñëw mu waxtaanee li nga xamante ne mooy campagne ak certainement taxawaay bi pouvoir bi war a am ci échéance bi ñu jëm euh, ci li ñu liir ci ay xibaar. Euh, mm. le ministre Pape nduur moo fa nekkoon. Samba Sy mi nga tudd. ak quelques responsables yoo xamante ne ñu ngi fa. Mm. COJER neew fa woon. neew fa woon. mouvement des élèves étudiants républicains. maire nekk nekk fa woon yooyu itam. dafay xanaa mel Pape Malick Ndour. waaw ci ministre ministre am donc ça veut dire toute l' équipe gouvernementale y que moom moo fa moo fa nekkoon. Mm. donc loolu itam mënuñu euh, bañ a gëm ni amul lu xew. ñu gis les sorties de Mame Mbaye Niang ah, ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy. Euh, ki ñu ah. tànn muy hmm. Amadou Ba ñu déglu fi Souleymane euh, Jules Diop euh, ci ci Amadou Ba ñu déglu ku mel ni Thérèse Faye nga hmm. xamante ne nii euh, da doon ñaan président mu bañ a sax bàyyi c'est comme si boo ko déggee ku naan ko continuer nga doxal nga doxal waaw boo ñu bàyyee président ñun kan la kan la ñuy desal fu ñu jëm ak bon ku saalit nga hmm. nga doon dégg bi muy bu muy wax mun nañ fi nekk di lim ay yoo xamante ne nii gis nañ ko ci taxawaay ci Amadou Ba bi muy bu muy dem fi nga xamante ne ci campagne bi ak biñ ko tànnee coow li ci jóg alors que ce que j'ai pas compris hmm. mooy euh, président def na leen tànn leen ñu ne ko tànnal ñu tànnal ñu waaw boo nee kilifa gi nag jox naa la sama baat doxalal bu doxalee euh, nga ànd ci nga ñàkk ci ànd da ngaa hmm. war a dëppoo ak loolu hmm. donc ñoom seen bopp ñooy contredire seen bopp en faisant en voulant nous faire croire que problème amul. ci seen ci seen diggante. ah euh, et ku gis président Macky Sall xam ne. man bokk si li ma remarqué genre nit bi ma gis mois di ne. lu mu bëgg a wax da koy wax. Hmm. waaw moo timing am moo koy tànn. moo koy tànnal lu ko bëgg a waxee la koy waxee. Hmm. ah maintenant la population ak les acteurs politiques d'interpréter comme ils veulent donc je pense que euh, su fekkoon ni tey am na taxawaay boo xamante ne nii amul woon. ñagas-ñagas boobu li li Pa Moussa doon souligner léegi hmm. nit ñi duñ ko interpréter noonu rumeur yi yàgg na ah, te chaque fois ñeneen ñi ngay dégg rek ñu naan la président nee na kat moom mooy candidat mais nit ki soo ko euh, joxee ba pare da nga koy bàyyi mu wax ci yenn ci jotaay yi daanu ko woon gis mu yëkkati kàddu président nga doon gis muy wax hmm. te ba léegi euh, quelque part da nga naan ndax moom doxewul nii itam ndax day sóor ne il a besoin de l'électorat de Benno ak hmm. ñuy jege le président Macky Sall hmm. pour que mu mën a am dara ci ci élection yi donc tey bu ñu toogee ba fii ñu ñaan ñu Amadou Ba moom moo sollicité le président de la République xam nga am na ñu ne dafa <coughs> interrompre waay interrompre euh, li nga xamante ne moom mooy. tournée am ndax président moo ko woo bien sûr. on nous dit dernièrement que tout simplement moom moo sollicité le président de la République pour mën ko gis gise nañ gisante wu ñoog téléphone la ñu waxante wu ñoog téléphone man jusqu'à hier j'ai parlé à une personne boo xamante ne nii mu ngi woon Maroc te président ngi fa woon ba ma nekkoon ndax président Macky Sall ngay wax mu ne ma soxna si président Macky Sall mu ngi fii Maroc mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. donc xaw ma nag ndax guddi gi lay ñibbi xaw ma ban moment lay gisante ak Amadou Ba bi ngeen ñu wax mais man mun naa la euh, assurer ne te demul Maroc boobu noonu siiwutu assurer na ma ni mm. mu ngi en fait gëm naa ko ndax teg na ay firnde loolu loolu laay wax moo tax ma ne xaw ma ndax président gisee naa ak moom xaw ma ndax téléphone je je je confirme ce déplacement sur effectivement daa yëgoowuñu te man mii sax am na ku ma woo ku jege. ci hmm. consulat bi ku ma firndeel barki démb. dëgg la mi ngi mi ngi woon Maroc lii nii man ak yoon wax ñu ci. mais moom it moom donc ça veut dire que am nañu ñetti. fii dëgg la ñu ko wax c'est te dajewul. léegi nag euh, effectivement dekk na Maroc mais ñëw na aussi. waaw ah. voilà ñëw na. ban euh, waxtu lañ voilà euh, te mais Amadou Ba même à raison de l'interpeller. Mhm. parce que. du siège ba amul am am maanaam. accès waaw dënd nañ ko fa. les fonds de campagne de Benno Bokk Yaakaar. dërëm génnul. Hmm. Euh, plateforme yi ñu am ñoom pour euh, seen visibilité lépp lañ tëgal Amadou Ba tout tout tout amul benn instance su Benno Bokk Yaakaar bu nekk en campagne actuellement. boole ci beneen tey <coughs> Ahmed Suzanne Camara mi koy jàppale. Hmm. daa dem siège pour def fa tey conférence de presse ñu ne ko ràpp doodu. voilà donc kon. y a une euh, de a de la l'APR carrément ah, képp ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga gis as tuut ñu campagne wala dara pour Amadou désingorisation bi désingo waaw déamadouisation bi tamit ci biir euh, APR dafa am ñi battre campagne as hmm. seen propre euh, moyen la ñuy jug donte seen i moyen ndawul ñoom it waaw ah. mais ci biir loolu noonu yëpp culpabilité de part de d'autre dafa am culpabilité de part et d'autre xam nga keroog maa ngi la maa ngi doon interpellé fii Marème ne ne ko na wax. waaw Marème waaw waaw na wax. fii da nga taxaw nga ne Marème Faye Sall na wax. na wax te du wax. ba léegi nii. du wax. non lu tax nga ne na wax. na jug ne Amadou Ba lay jàppale man dama jàpp ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy xeex Amadou Ba te au début de l'affaire. Hmm. moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon soutenir la candidature de Amadou Ba qu'est-ce qui a changé entre temps. Ah. boo xoolee ñi hostile à Amadou Ba yëpp dañ ko jege. Hmm. ñi hostile yëpp dañ ko jege. Mame Mbaye Niang même même dernièrement ñoom <coughs> Thérèse ak ñoom Sirac ñoo ñëpp. Ah. waaw ak temps yi ci même clique gi la. léegi naka lañ def ba tëjal lépp Amadou Ba. léegi xam nañ ne ko ubbil it. ah buñ tëjee yëpp Amadou Ba. ubbil buñ jom ubbil buñ jon ah, ah. parce que alternative bi loolu la. si ne peuvent pas avoir le report parce que président Macky Sall àndul ak ñoom à 100 pour cent. Hmm. àndul ak ñoom à 100 pour cent. mooy ci li ñu bëgg a def. ci ñoom li ñu bëgg a def Amadou Ba président Macky Sall àndu ci à 100 pour cent mais nag bu ci àndul à 100 pour cent it mu ngi leen di jox gain de cause plus à de de de. loo bëgg wax ne ci lii ñi koy xeex dañu dañu. maanaam moom il est minoritaire. ci ñi bëgg Amadou Ba poussé ne. moom mm-hmm. àndu ci. moom non moom bu ci ànd bu ci àndoon peut-être euh, affront bi dina gën mais ñemewul Amadou Ba Amadou Ba ñemewu ko. ah waaw xam nga fa laa ko teg <laughs> déjà bi coow li gën a bëri moom moo moom moo njëkk a ne Euh, nañu rapport ndax ndax ndax ndax même pas trois jours mu dellu renouveler sa confiance ak ki nga xamante ne moo waral euh, rapport bi loolu yenn na maanaa maan moom moo taxaw ne dañuy rapport parce que dañoo jiiñ ay corruption ci suba si wala ginnaaw suba di ki ñu jiiñ corruption moom mu ne renouveler na ko confiance am lan moo tax effacé wu ko quelques euh, jours après mu effacé ko en tant que premier ministre. ne ko demal nga liggéey. day hésité ñemewul waaj. parce que aussi. Euh, am na ci benn xeetu pression international boo xamante ne xam na ne am nii muy jéem a jàkkaarlool moo ko waral. ah am ay loxoom gudd na noonu. bu baax nee naa la kenn bu ko kenn xeeb. Ah. bu ko kenn xeeb ndawul. waa ji xam na ne ka muy jàkkaarlool ndawul moo tax moom it ñemewu ko ñoom ñaan ñemente wuñ xeex boo xamante ne di léewtoo ku nekk jël euh, deux mètres loolu la demee. parce que am tamit xam na ne affronte Macky Sall mën na koo anéantir moo it xam na ne affronter Amadou Ba mën na koo anéantir ku ci nekk dafay jël par personne interposée boo xoolee ñi ñi ñi ànd ak Amadou Ba ñoo génn kaas mais amadu Ba ci boppam waxul Birima Ndiaye génn na xëgg fëgg fi dënn yëngal fi jëpp mm-hmm. Omar Sow yëmbal sud gis naa ko keroog mu xaaju mu xaaju de mais mais wax de ba léegi am nee a tekk Macky Sall ña jàkka ñoo wër première dame ba ñooy wax waaye ñoom ñaar ñëpp kenn nga et li tax nga li nga wax nii boo fàttaliku barki Dembo Ndiaye ci je pense conseil des ministres bu mujj bu Amadou Ba mais fii lañ ko jàngat ci digg penc waaw wax yu baax yi Amadou wax ci Macky Macky wax ak Macky ya mu ko delloo ku ci nekk say ñooñ di xeex loolu ça veut dire ñii ñaar ñii ñooy xeex te ñemeen tewuñ donc il mène des combats par procuration parce que ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk xam na ne sa morom yor nag caay-caay goo xamante ne mën na la doote loxoom du la laal mm. oui donc maintenant c' est la campagne de Amadou Ba qui son en train de saboter carrément. oui bu ñu waxee ni peut-être mën nañ génn ci décision boo xam ne ne président Macky Sall dina wax ni léegi définitivement Amadou Ba mooy candidat am te dina ko accompagner ci campagne bi di des ci campagne bi su ñu demee ba wax loolu lan la. est da nga njort ni kon. non euh, si mën na profond ci seen biir mujj nañ juboo am ca. non juboo am na xel wala juboo amu ci. Macky bu defee loolu ñàkk pexe la. Ah. waaw waaw juboo moom amu ci. le mal est profond. te mal bi bu dee jàpp nga ni du mbirum soupçon yi PDS di wax. non mais non mais non. lan du lu ndax duñ ñu wax lan la. ko nee naa la nee naa la problème bi du tey problème mu Ousmane Sonko ak APR moo taxoon bii feeñu mais ñoom mosuñ bëgg Amadou Ba. te ku ne je veux dire ku ne xam na ne APR mooy parti bi gën ñi maanaam ñi gën iñaan ci réew mi ñi gën soxor ci réew mi. moom parti boobu la. <laughs> mais waxuma. donc kon non non dañoo soxor mooy. dañoo soxor man li ma wax mooy ñaan mooy malgré loolu yëpp. pourtant président Macky Sall mu ngi am ci moom confiance di ko teg ci yenn. ci yenn ci yenn station. waaw station boobu d' primature bi. nuy tete la sortie de Mimi Touré et il ne serait premier ministre. Hmm. waaw parce que hémorragie yi Touré bi. Hmm. boo ci boole woon beneen hémorragie Amadou Ba la affaire s'écroule donc c' était obligé euh, mu def ko premier ministre. Hmm. bi muy tabb candidat yi il n' avait pas le choix nee naa la tout le Benno Bokk Yaakaar était Amadou Ba. Hmm. moom ak APR kese xam nga mënuñ choisir. donc kon il était obligé Amadou était le choix qui s'imposait à lui mais mais il l'a dit. Hmm. choix bi du doon choix wu cœur. kon kay Amadou Ba n'est pas dans le cœur. mais même s'il n'est pas dans le cœur. il a été imposé par d'autres yoo xamante ne ñoom ñoo taxaw waa APR gis nga leen fi Macky Sall au cœur. waaw dans les kan kenn la kenn la Amadou Ba di dugg ci seen i veines amul bëgguñu ko te ñàkk koo bëgg boobu noonu du tey boo xoolee même. ñoom pendant la ah. campagne dañuy gis man ñi ma ciy topp ci seen statut. ay président Macky Sall la ñuy kañ. moom la ñuy def photo. am na ci ku ma gis démb sax moom ñu ci campagne bi ah. ministre la waaye dama ko <laughs> buñ joon laa ko gis mu def bu buñ joon après daa mel ni daa supprimé waat statut bi mais bon euh, ñi ñi ñi nga xamante ne tey jii nii euh, ñoom ñoo nekk ci euh, frange boobu noonu ànduñu ak Amadou Ba il trouve en buñ joon peut-être une alternative mais xoolal entourage yu Amadou Ba rek est-ce que directoire campagne ba mu choisiroon booba. Hmm. anañu justement vas-y approcher Amadou Ba directoire de campagne boobu boo demee ci euh, commission stratégie xaw ma ay lan président Macky Sall mu ngi fa. ah waaw euh, euh, Moustapha Niassane ko. ànd na ànd ñu ñooñu. ba ci Abdoulaye Daouda Diallo. maa ngi lay wax statut bu Ndiol. est-ce que du moom ci statut bu Ndiol. est-ce que du moom je sais pas mais. léegi xoolal entourage entourage yu ah, Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo xoolal entourage yu Amadou Ba <laughs> entourage yu Amadou Ba ay Jalika Ba nga fay gis. <laughs> ay Birima Ndiaye nga fay gis. ay Mamadou Ibra ay Omar Sow c'est-à-dire ce n'est même pas bon à part Omar Sow ce n'est même pas l'APR dëgg dëgg loolu hmm. euh, Birima Ndiaye c'est le parti socialiste Jalika Ba bon voilà ce n'est pas l'APR donc hmm. c'est un membre c'était un membre fondateur de PASTEF maintenant euh, proche de Amadou Ba Doura Baldé Pape Malick bu weesoo loolu gisatoo kenn xanaa ñoom Lat Diop waaw ñooñu da nga koy boolewaale ci ñi nga xam moo tax ñu tëbal leen la léegi tëbal gi ñu leen tëbal ci gouvernement bi Doudou Ka Ka tëb na day tëb euh, te fi nga xamee ne Amadou Ba tamit garaaw na mooy ñi mu tëbal noonu foog na ñooñu ay proche Amadou Ba ay proche Amadou Ba ñu ngi ci biir gouvernement bi gën fa ñu fees fa dell moom comprendre lul loolu. feeñaluñ seen bopp duñ ko feeñal. Ah. moo tax ma ne bu ñu génnee léegi mu confirmer Amadou Ba ne day ànd ak moom campagne léegi ci fan yi des nii moom. Passeman ci fi ñu toll nii. kii bi ñu wax ñaata jour a ci des. bidia oh. waaw loolu est-ce que mën nañu toll ci jamono jii war fa jaaraat na euh, na doxal de telle sorte que nga nga change leen xam dafa loo xamante ne nii ci digg pe ñu ko doon Pa Moussa di conseil constitutionnel bi candidat yi 19 bi. 19 bi du changé. Hmm. comme du change Amadou nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom candidat la. Hmm. Ah, leer na de. xam nga. donc ah, yow euh, su fekkee ne euh, boobaak léegi li nga xamante ne moo ci des bëreetul. Hmm. et puis on montre une image vraiment assez euh, disons écornée. oui de l'APR. mooy ñu nekk ci biir benn coalition boo xamante ne président Macky réussir na depuis bu mu fi toogee boole leen ñu doon benn. Hmm. yow nga bëgg a dem bay waaj a jeexal say ñoñ. ñi nga xamante ne yow mi mi mi taxaw initier loolu yaa leen àndal ñëpp bëgg a euh, normal ci groupe bi ba yow ñi nga àndal sa njaboot rek ñoo bëra ñoo bëgg a yàq xew mi mm. xam nga euh, aussi dem bàyyi fi euh, benn Bokk Yaakaar loolu itam ci ci liggéeyam la war a ah, bokk ci legam la war a nekk ah, ah. pas di dem bàyyi fi appareil boo xamante ne nii wala une coalition qui a survécu durant toutes ces années mm. mu mu war a tas ndax lan kenn lañ tànn pour ay égo yoo xamante ne des gens de l'APR lañ lañ lañ ci gis. Mm. alliés yi waxuñu donc loolu noonu <laughs> soo ko bëggee euh, toog ba jamono ji li Pa Moussa <laughs> naan crise politique. Ah. problème bu am si biir benn formation politique. Ah. nga bëgg ko xëcc mu ñëw ci pénc bi. Mm. foofu la problème amee. sa à man su ma gisee lii damay ne finalement est-ce que euh, waa APR ñu ngi déggal président Macky Sall. justement est-ce que président amati na kilifteef boobu nga xamante nii moom lañ ko gisal depuis tout ces années ñu toll ba muy dem est que kilifteef googu noonu ñu ngi ko koy nangul ah. parce que avant daana woon gis yenn yi am nga gis leen ñu taxaw euh, à visage découvert en tout cas di sañ di def yenn mm. sorties yi mm. euh, bu ñu demee ba ñemee ko taxaw ci ay ay tribune di wax te xam ni mu ngi leen di dégg mm. ndax da leen a yónni wala euh, tout simplement c'est des gens yoo xamante ni ils sortent des rangs tout simplement parce que déggaluñ ko loolu tamit il faut nit yi bàyyi ci xel fii ñu toll bu ñu nekkee ne euh, dañuy doxal de telle sorte ñoom ñooy perdant parce que ça fait moins de temps hmm. de campagne pour seen candidat de l'autre côté opposition bi en tout cas gis nañ ci ñoo xamante ne ñu ngi mobiliser ñu ngi dérouler ñu ngi hmm. doxal comme ni ngay gisee tamit ñoo xam ni ñu ngi woon ci président la république hmm. te après ñu gis leen ñu génn continuer seen bopp. ne nekkatuñu ci lii candidat lañu ko mel ni Idrissa Seck. Idrissa Seck. Euh, Mame Boye Diao mi nga xamante ne ci ñi mer ngemb la bokk. Mm. Boun Abdallah Dionne ainsi de suite ñooñu noonu tey boo leen gisee seen campagne même bu dee ñu ngi doxal timide na par rapport ak ni ngay gisee PUR ni ngay gisee euh, coalition Diomaye président donc moi j'ai envie de dire dafa am lu ñu xam te ñun xamuñu ko waaw wala dafa am lu xew ba tax ñoom ñu ci demee ñu ci demee tuuti rek di mos ci campagne bi mm. defee wuñ ko ak ni nga xamante ne nii noonu la ko seen yenn euh, adversaires yi di di defee mm. loolu tamit c'est des questionnements yoo xamante ne mu ngi fi mbaadu dalay yóbbu ci ñiy xalaat nii ndax élection finalement dana am waaw yaakaar naa ni yabuñu sénégalais yi yab boo xamante ne xam nga xaw ma yow yaa ko wax xaw ma kan la am na benn benn image bu ñu ma def caricature may ree parce que dafa ne président Macky la tàngal la yor <laughs> di ñu ko sexal ñu dem bay seex mu xëcc ah. ne xaar leen ba mu neexaat ko mu indiwaat benn moment nag loolu boo ko defee xale sax dina téye sa loxo bi nangu ko wala mu foqati ko mm. li nga xamante ne nii mooy élection bi ñu toll ci process boo xamante ne les gens t'expliquent très clairement nga koy dégg si ñii ak yeneen borom xam-xam ñu ne la kenn mënatu koo changer. kenn si li ñuy jot fi ñu toll nii dañoo war a dem ci élection yi jàll ci leneen mm. mais ñu toll ba mu des dernier virage ñu bëgg a théoriser suñu xel yi jàllale ci ne non y a un candidat boo xamante ne dañ ko léser parce que ma nga Qatar hmm. mbokk Pa Moussa bokkul ci ci ci xew mi donc forcément dañu war a reporter ba ñoom ñuy wax ay plainte ndax ay audio yoo xamante ne nee nañ authentifié wuñ ko si ñoom li ñu wax mais dañuy plainte pour am ci lu leen leer en même temps ñu ne dañoo bëgg conseil constitutionnel ñu ñu ñu tas ko cour suprême mi nga xamante ne war a àddu bu bu àttee ba pare. <laughs> waaw di nga delluwaat ca conseil ba. conseil moom moom xam nga dañ naan dangay wax wax wax rek waaye di nga. delluwaat ci moom ngay mujj donc am na loo xamante ne amul sens. te yenn yi ça frise l'égoïsme mm. nañu nañu waxante sabotage bi Pape Moussa égoïsme boo bëggee nga ne man dama war a bokk léser nañ ma ñaata candidat lañ fi léser ñenn ñi taxaw à haute et intelligible voix ne ñoom ànduñu si ku mel ni Bougane Gueye nañu àggali malgré def nañ ma lii waaye nañu àggali mais pendant dootul ñu ngi laqatu ci ginnaaw PDS naan Karim nee na lii mais am na ñeneen ñu ko bëgg pas Ousmane dañoo dañoo nanguwul taxaw rek jàkkaarloog nit ñi askan bi mm. assumé mm. mais dañu bëgg a wékk lépp Karim Wade sauf que fii ñu toll ak li nit yi dund yàqamti jàll ci leneen ba mun a sóobu ci liggéey réew mi ci ay questions yu ñuy yitteel mm. wax dëgg yàlla sonn nañu ak politique yi jooy war ñu moo yegg à ce niveau Pa fi nekk naan dañuy delluwaat ci ñu fi jotoon abordé ci euh, euh, waa waa waa PDS li ñuy yëkkati jamono ji te Cour suprême war cee àddu du am benn incident comme ni ñu ko yàgg waxee ci processus fi ñu ci toll la ñuy sàkku ne dañuy dissoudre conseil constitutionnel ci contexte bi ñu nekk nii yooyu yëpp jàpp nga ni xëy na dañ koy weesu mais finalement ni ñu bëggeewoon dund campagne bi ci déglu candidat yi bien que am na am na ñuy proposer am na ay programme yoo xam ne ñëpp jotee nañ ci mais yi bu ñëwee ajouté waat ci amoo impression que dina la coalition Diomaye président wax dëgg yàlla. Euh, ñu nekk ci eeru campagne dëgg dëgg dëgg gisuma ñu ko. ñeneen ñi nekk ko vraiment. aram mu ne pur. Euh, bon di ngay gis sax pur oui. dëcc it euh, loo mënti wax ma ngay yéeg a ko wàcc. mais mais mais c'est-à-dire allure campagne quoi. Mm. carrément. Euh, parce que déjà douze jours nga am douze jours yi mënoo def sax les quatorze régions bu ci nekk. mais euh, par exemple la coalition Diomaye président fépp fu ñu nekk ci gox yi di nga gis ni ñoom ñu ngi. activé waaw def seeni caravane. tout le monde parle euh, d'une campagne très timide. Mm. Euh, sur le plan de la mobilisation sur le plan de l'offre programmatique même euh, même sur le plan de l'animation politique des na donc kon. am na ci ñoo xamante ne sax même ci biir candidat yi. Mm. da ngay wax ak ñoom. mais ne may sawaay est-ce que li jar na yàq xaalis euh, ah oui parce que peut-être mën nañ dem ba ci biir ñu annulé waat ko donc cette incertitude là euh, peut-être ralentir na euh, candidat mais nag li nga xamante ne yow yaa ko moom. Hmm. parce que élection bi président Macky Sall moomu ko. déedéet mais soo nee soo demee mën nañ dem ba si biir candidat yooyu di dutee ci loolu fan la ñuy fan la ñuy wékk loolu. justement waaw mais parce que euh, mooy li ma wax rek. loo xamante ni dañoo xam lu ñu xamul li ngay wax noonu. non c'est-à-dire ak lu ñu mënti xam du am du xam parce que président Macky moomul élection bi ba di ko reporter ni mu ko neexee. Mm. tàngal boobu noonu moomu ko. dañuy téye loxoom wala bukkee léegi quand même du yëfam moomul élection bi bay taxaw na bu bés bu ko neex la koy organiser wala du ko organiser. Mm. kàddu sénégalais yi la le droit de vote des sénégalais. Ouais. donc man je pense que euh, am na. effectivement mécanisme interne ak mécanisme externe. ñoo xamante ni ci biir réew mi lan nekk bëgguñu élection am. Hmm. am noo xamante ni ci waa bitim réew bëgguñu élection am. Hmm. alors ñi nga xamante ne nag danoo nekk ci réew mi te bëgguñu élection am hmm. ñooñu ñooy jafandiku ci Karim bi parce que quand j'ai vu mu partager ces audios aussi ridicules que pathétiques oui audio yi déglu nga montage yoo xamante ma déglu naa ko mais da ngay da ngay y' a y' a y' a une partie qui revient à chaque audio. mooy bu tunnel. tunnel bi sëñ bi nañ bàyyi caaxaan waay nañ bàyyi fonto sénégalais yi nañ bàyyi pom yi. conseil constitutionnel li mu def ci Karim Wade. Hmm. waxuma li mu def ci élection bi ci kii bi yëpp de. Hmm. Karim Wade loolu droit la. mais ñoo xamante ne dañoo taxaw démontrer. Hmm. ni ñu leen tooñee ci conseil constitutionnel avec des preuves claires. docteur Abdourahmane Diouf. waay Bougane Gueye Dany. Mm. Mimi Touré ñooñu dañu la taxaw jox la ay preuve carrément que ni conseil constitutionnel daf leen a tooñ kenn mënu koo contester. Mm. ci li ñu wax yow li nga wax amul bopp amul génn di ñu génnal ay audio montage saa bu ñu bu ñu fontoo Sénégalais yi. Mm. kooku moom moo war a nekk tey jii nii la cause de report. wala ñi ngay douter yow ci élection ndax dina am en tant que candidat. ku bëri xam kooku noonu. yow en tant que candidat ngay dute amoo ful la waay. Mm. non mbir mi moomu ko. président Macky Sall moomul suñu suffrage moomul suffrage yu Sénégalais yi kon ki nga xamante ne tey conseil constitutionnel moo validé sa candidature. Mm. ngay toogaat di hésiter ndax élection dina am am du am. justement non parce que bukki bu yàbbee waxambaane ci doxin wala. bu leen gisee ngay di doxee nee sax moo koy reporté. ndox ah. jëm ci élection yi. wan ko ne nekkuñu ci benn possibilité de report. kon yow da ngaa bëgg a wax ne kon candidat yi seen bopp kii poids bi am na ci déclaration commune bi waroon wane ni daa dugg ci dafa def candidat ah. sur le caractère timide maanaam pour wane ni de leur campagne de leur waaw ah. ñenn candidat ñu taxaw ne wóorul ah bu saa yi da ngay dépenser sa xaalis après ñu ñëw reporté waat mooy loolu wóorul la wala dañoo xool gis seen yenn morom yi xam ne ku wér yaa xam sa bopp xam sa bopp man lu may laaj dama bëgg a xam doucement cest man xam sa bopp hmm. terewul quand même nga campagne. ñëpp xam nañ ni. coalition Diomaye bi moom saa fu mu jàll dafa dóom loolu moom c'est la vérité bu ko kenn yéem a sax mais loolu terewul nga campagne nag parce que attention en 2012 comme en 2019. Hmm. gars yi xamoon nañ ne Macky Sall mii mooy gagné mais terewul leen terewul tere na leen campagne parce que am na ñoo xam ne campagne bi ñu ciy campagne ce n'est pas pour gagner en vérité. mais donc. tribune la pour peser sur la balance. ultérieurement xam ne jomaay moo leen ëpp doole loolu terewul gars yi campagne mais li tere gars yi campagne mooy génne si ñu xaalis dépensé ko te élection du am loolu nag laa ne man dama jàpp ne loolu pour man rax la ñàkk fayda parce que ku moomul élection bi bokkul ci élection bi Macky président Macky Sall Karim Wade ak man ñoo yem ci élection bi. ay ah. électeurs képp lañ ci. Hmm. arab foofu laa ne question bi déggoo ma ne la si loolu moom laa doon ñëw fi processus bi toll. Hmm. Euh, PDS parce que am na intérêt à agir maanaam. li ma bëgg wax hmm. mooy. est-ce que yoon may na ko ci fi processus bi toll moom bu dugalee dara comme recours mu mën a am jeexital ci processus fu mu toll. Euh, est-ce que loolu moom moom laa wax fii nii euh, keroog Pa Ousmane. ci hmm. radar bi. que ñoom qualité agir sax amuñu ko. ok intérêt agir amuñu ko parce que contentieux électoral da koy tijjil les candidats moom du candidat. benn ñaareel ba mooy ñàkk euh, qualité de agir boobu noonu ñoom ñu ngi exiger à ce que ñu respecte ñaari disposition yu code électoral moment bi ñu koy exiger noonu mhm. il demande la violation de trois articles de la constitution bi daw code électoral loolu dafa am sens loolu amul bopp amul genn ah, taal donc kon seen recours boobu noonu ca conseil constitutionnel. conseil cour suprême cour suprême. Mm. cour suprême ci boppam la mu leen war a njëkk a wax mooy man mënumaa àtte lii. waa ah, ah. parce que c'est pas un juge constitutionnel lui. conseil constitutionnel moo euh, cour suprême du juge buy àtte lu jëm ci élection. léegi nag ñoom danoo danoo danoo danoo muus. Hmm. waxuñu reporter élection bi de. déedéet dañ ne. abrogé le décret convoquant électoral. c'est donc acte dañuy dugg dans la chambre administrative attaquer un décret xam nga loolu boo ko déggee nii rek. dugal ci abus. waaw waaw xam nga boo ko déggee rek da nga naan effectivement c'est la compétence de la cour suprême hmm. mais soo annulé décret bi reporter nga élection bi dugg nga kon donc ci contentieux électoral. Hmm. alors donc foofu noonu. amul lenn loo xamante ne. Euh, euh, recours pour excès de pouvoir mën na ne. ci ci cadre bi. xam nga xam nga recours pour excès de pouvoir euh, REP bi mooy acte de gouvernement. Hmm. actu président de la république. léegi ñoom seen recours bi waxuñu ne élection bi lan lan lan lan lan lan lan ñuy attaqué. léegi décret wu président bi. lañ bëgg ñu annuler te décret bi boo ko annuler élection bi du am léegi da xam nga euh, dafa am lu leen rëcc quoi ñoom. ñoom la waaw décret bi balaa ñu koo jël. conseil constitutionnel ci boppam substitué woon na président. justement indi la 31. andi andi la date convoqué corps électoral président ba mu ko defee lan ko doon jëlal ñoom par extraordinaire. Mm. cour suprême la leen wax ngeen dëgg annulé nañ décret bi la décision du conseil subsiste. d'accord. léegi il hmm. se cache derrière le fait que campagne bi matul vingt et jours waay beneen contradiction ci biir PDS ñoom ba ñuy demander report ca élection ba woon vingt et vingt cinq février hmm. ca lañ commencé demande report kon ñoom li ñuy demander du seen problème du vingt et un yi seen problème élection bi la hmm. léegi nag ñoom bokkuñu ci élection bi waruñoo wax ci élection bi lu dul dem voté yi ñëwaat képp la ñu am ci élection bi ñoo ko Aada Ndeye Arame Touré ñoo yam kese ci élection bi Karim Wade ak Ndeye Arame Touré kiif kiif ci élection bi kenn ëpp ci droit moromam dem voté yi ñëwaat toog hmm. léegi ñoom docteur Abdourahmane Diouf ñoom Bougane Gueye Dany ñoom mi Touré ñeneen ak ñeneen ñu ñu recalé mais ku ci nekk dem nga rejoindre ki nga xamante ne moom nga dëppool xalaat ci élection bii nii Sonko mi nga xamante ne moom leen gën a tooñ ci candidat moom leen gën a tooñ ci candidat moom sax boole na lu ko neex ak lu ko naqari dem choisir beneen candidat. et d'ailleurs ñuy xaar mu génn léegi léegi dina ànd ak Ousin su ko defee mu jox ñu xibaar yi mujj ci wàll. ca Cap Manuel waaw ca Cap Manuel donc Sonko moo capable de renoncer de respecter cette décision du conseil constitutionnel ay la yowin waa PDS. qui n'ont jamais jamais amul lenn lu ñu def ñoom pour Sénégal tegu ci euh, état de droit ñoom daanaka defuñu ko. 2021 hmm. ba léegi dëkk bi traversé na crise bu ne ŋaawuñ. Karim tweeté wul sax moom. tuuti ñooñu ñooñu ñooñu ñooy taxaw tey naan ñu dañuy reporter suñu élection dañoo sonn alors Pape Moussa mu ngi laal ñi dañoo iñaan quoi <laughs> xam nga xam nga dafa am yoo xamante ne Pape Ousmane <laughs> ñu yërëmuñ sénégalais yi waaye quand même quand nañ mën a dépasser fii non sincèrement quoi xoolal euh, man ñi ma xam te ñu bokk ci PDS ñu hmm. ëpp foofu euh, sama papa sax PDS la bokk sooy maa ngi koy nuyu fële ca euh, États-Unis ci New jamono yi nee nañ da nga leen PDS la xam nga bopp waaye nag bu ñu nekkul ci dëgg dama naan leen du dëgg. Ah. parce que lii du droit lii. Hmm. yëpp sénégalais yi la. lii bëgg a andil sénégalais yeneen xeetu coono yoo xamante ne. Hmm. mais kii am day jeex donc. Euh, Karim na def vidéo na def vidéo ñu xam alors arab mu ngi laal sànq ah, ci poñ boobu ci laay duggee après mën a am ousin su ko defee mu wax ñu lay xew ca Cap Manuel ndax mbir yaa ngi yëngu ou pas. daa a euh, la caravane caravane boobu noonu arab ba tey ñu gis ah. fa fa la ñuy jaaree nag. ñu ngi élection ba faaw. <laughs> campagne parce que bu plaider président Macky génn na pour Amadou Ba. mais pour Amadou Ba justement. soo ko génnal Diomaye soo ko génnal Diomaye. ah, ah waaw waaw waaw waaw foofu laa bëggoon dugg ak yow déjà. ak ralliement yi la bataille de poulains ñuy bañ. waay mais daa mel ni ci lañ jëm nii. bu koor gi nag laay laay kii parce que seen émission moom seen bos day miti. <laughs> te ñaar ñële euh, ay ay kii la <laughs> ñoom mënuñ dëkku xiif <laughs> mais ñaar ñee mënuñ dëkku xiif. <laughs> Sonko ak Diomaye séeréer ak joolaa bi moom seen bos du dem. Ah, mais ñee. Eh. ñee moom ñoom ñeme nañ ñeme nañ xiif. Sonko li la faim mënul xiif. ñu yi muy def. ñu ngi doon lekk. <laughs> <laughs> alors foofu laa bëgg nga ñëw ay docteur Abdourahmane Diouf bettu la ñu ngi gis finalement ñu dem rallier ci euh, Bassirou Diomaye fay léegi ñu ngi dégg euh, ki nga xamante ne moom mooy maître Tine ah avant boobu ay docteur Abdourahmane Diouf ñoom Mimi Touré ainsi de suite. Euh, la bett la wala. maître Abdoulaye Tina ah. mais mais le maire de Sandiara. Sandiara justement Serigne Gueye Diop. xam nga bi Birima di toog naan ñoo suñu suñu xarit la. Hmm. parrainage am du mat ñu ngi koy woo pour mu fekk suñu ci hmm. Amadou Ba boobu période août parrainage la tey moom bi mu paree c'est-à-dire au-delà de Amadou Ba kon gisu ci boppam. Hmm. dafa génn dem dugg coalition Diomaye président. mais euh, Passeman man par exemple bu mel nii bu maître Abdoulaye Tine euh, bettuma en fait. parce que tout simplement. le gars même bi ñu ko invité émission ak yeneen tribune yi nga xam ni gis nga ko fa. si si waxam moom euh, daan na fësal ne kii dañ ko teg injustice. te ci waxam la nga xamante ne moom la doon prôné dina am ay yoo yoo xamante ne ci euh, gis-gisu Sonko da nga naan am na ay jonction parce mm. que tout simplement boo leen déggee da ngay ne ñii bokk nañu xalaat ci mm. yenn yi mm. donc loolu mën na nekk loo xamante ne nii euh, du la du la bett. bon personnellement liw ma mais ku mel ni euh, docteur Abdourahmane Diouf pourquoi man mu mu bett ma parce que euh, dans son discours yi nga mm. xamante ne man doon naa ko gis ses prises de position yi tout je ne l'ai pas entendu euh, s'attaquer à Ousmane Sonko mais quand je l'entendais parler dama ne docteur Abdourahmane Diouf il fait du Sonko sans Sonko. parce que ah. boo ko déggee ni mu daan waxee man bokk loolu sama appréciation personnelle la. mooy di euh, c'est cette posture laa nga xamante ne moom la Ousmane Sonko am. Hmm. ci ci ay kàddoom ci ci ci waxam ci ses prise de position et tout donc bu ma bu ma gisee loolu dama ne mais kii ci li muy wax nii cest di waroon na mën a bokk ak Sonko kon bu yàgg. Ah. soxlawul. nga nga dem ba fii nii. Ah. nga ay ñëw rejoindre coalition bu bu Jomaay. Hmm. loolu loolu la ma la ma jox comme comme euh, impression parce que damay ne euh, bu ñëwoon bu yàgg. Hmm. damay ne ah kii kat ni ma koy dégg mu waxee ñaar ñi bokk nañ gis-gis. mais soo amee taxawaay boo xam ne da nga taxaw di wax. Uh, mu nuroo loogu ak ki nga xamante ne moom nga jàkkaarloo. Hmm. nga dem ba benn moment say mbir sottiwul ñu laaj la nga ne bu ma kenn wooyee recalé <laughs> ñu demaat encore di wax nga ne li ñu def nii teguñu ko ci yoon. Euh, yow dañ dañ la dañ la xañ say droit comme ni ko kii souligné léegi Pa Moussa donc am na taxawaay boo xamante ne dégg naa ko man personnellement boobu Bougane a ngi taxaw ci présidium bi mu ne euh, pour le moment euh, As Abdourahmane Diouf soutenirul kenn ci ci nekkul ci kenn nekkul ci kenn mu ngi ci boppam waaw donc boobu noonu ci xam ni mbir yi doxee boobaak léegi hmm. je pense que il avait la possibilité xam fu muy féete. Hmm. avant di toog di xaar cette lecture. bizarre mais bon mois je pense tout simplement gars yi dañuy toog ba benn moment nga xool nga ne fan mooy dox. ah ah fan mooy euh, dox la. Ah, man loolu laa gis. Hmm. c'est-à-dire existence euh, politique euh, waroo ko wékk rek ci ah fii nii mooy marché wala fii nii am na gëm-gëm yoo xam ne soo ko amee. Hmm. da ngay da ngay taxaw nga wéet. ak nga ñàkk wéet nga ànd ak ay nit ou pas dañ lay xamee ci ci posture bi mais facilement glissé ci benn affaire boo xamante ne nii bon man gisuma ko ci woon pas parce que bokkuñu gis-gis mais ci ay propos yu doon yëkkati tout simplement jeune ne le voyais pas rejoindre euh, ku mel ni jomaay euh, mais day toog am beneen lecture xool bu ci gisul boppam waajalaat taxawaayam doo koy xam fan la fan la jëm alors dinañ ci ñëw ñu ngi ak Ozan wax naa leen ko cinq ans ah, Ozan Euh, Ndiaye di suñu ndaw bi ñu teewal jamono ji ca Cap Manuel bi nga xam te bët yi ak nopp yi jamono ji fa la ñu ñu ne ginnaaw bi Madiambal ñu waxee ni dinañ leen bàyyi tey te njiitum réew mi dana promulguer yi nga xam te mooy loi. temps yi moom bi. waaw moo yor scoop bi Madiambal moom it dinaa ci taxaw dinaa ci ñëw. Ousa ñu ngi lay nuyu bu baax jamono ji yaa ngi ca Cap Manuel ndax mbir yaa ngi yëngu ndax gis nga fa ku ñuy woowee Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo passement di nuyu ñu nekk si plateau bi Aram euh, ci yëpp ñu toog comme ni ngeen ko ko waxee d' ñu bi ñu xibaar bi à travers post bi nga xamante ni Madiambal Diagne daal na koy posté ci page Facebook am euh, ci la ñu daal di ñëw taxaw ci buntu Cap Manuel ngir xool xibaar bi naka lay demee ndax génn gi luy wér la wala du wér mm. euh, ginnaaw bi ñuy waxee ne après midi bi lay doon en tout cas ñun ñu ngi taxaw depuis presque quarante minutes mën naa ni environ ñu ngi taxaw. ba nii gisaguñu benn signe bu wane ni am na ab détenu bu nekk fii bu war a génn muy Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye Faye sànq nag am na benn oto bu ñu fi romb quand même ah. boo xamante ni mooy oto yi mooy oto yi faral yàpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñu nekk si kaso bi leen génnee am na oto bu ñu fi romb ñuy tooñ sax ñun suñu biir naan est-ce nekkul si biir waaye en tout cas pour le moment oto yaa ngi di jaabante ndànk-ndànk mais gisaguñu benn dispositif buy wane ni Ousmane Sonko dafay génn. dafay génn oui parce que bu doon fu ngeen féete jamono ji. waaw ñun ñu ngi si porte bu mag bi mais comme si porte bi rek fixe porte bi. waaw doo ko mën ci tuuti daal. Hmm? donc taxaw nii moom oto bu fa génn moom ñu ngi janoog moom. waaw. waaw na comme yéen comme xam ngeen seeni mbóot nu ngeen koy lijjantee ba xam ni muy génnee même bu dañ koy ba dañ koy banaliser sax parce que boo ma waxee escorte moom forcément <laughs> day feeñ. waaw xëy na ñoom it ngi seen stratégie yoo xam ne dana gént du ngeen ko yëg yéen it fexe leen ba am seeni bos. waaw ubbi seeni gët. bàyyee xel bépp détail bu leen négliger daara. waaw mbaa ndogu du leen fa fekk rek. mbaa ndogu du ñu fi <laughs> waaw njort naa ne ndogu nañ ci fekk nag de eh. njort naa loolu nag. comme ni ñu toog di xaar te li ñuy xaar gisaguñ ko moom li ñuy xaar bis kanam rek. yéen doo nga fa ne wala gisoo fa. lu nuru njabootu Sonko it. waaw bon gisaguñ fi luy nuru njabootu Sonko mais également sànq Ngoone Sall bi ñu ko woowee téléphone nee na coalition Diomaye président xam nga dañu waroon dem fële ci Tivaouane. donc mais finalement dañu mujj yem mbaaw ndax ñoom dañu yëg ay xibaar ci génn Ousmane Sonko loolu moo tax ñu dakkal seen yoonu Tivaouane bi am déet mais en loolu yëpp di ñaar si kanam dinañ ko gën a topp mais ñoom ñu waroon dem fële ci Tivaouane. Hmm. mbaaw la ñu yem pour le moment. Hmm. loolu dinañ ko hmm. lijjanti léegi ak euh, Ngone kon nag xippi leen seen i gët. te bàyyee xel nopp lépp. lu ci am rek ngeen xam ne dinañ fexe ñu la amaate incha allah merci beaucoup ah Ousin mi ñu euh, teewal jamono ji fële ca euh, Cap Manuel Pa Moussa du ñàkk hmm. yow ah yow xam nga. Ah, ñoom après nu mu daan deme non maanaam maanaam génn yi maanaam ñu mel noonu bu daan génn xam nga xam nga muy wax sànq daan fekk ñu fa. gisuñu fa daal luy nuru dispositif. xam nga ne loolu mënul nekk moom. <laughs> mais mun nañ ko def de telle sorte que mu waa. ah ngeen di du génn du génn kii de du génn n'importe ah, kii. waaw ah, de ah, <laughs> mais est-ce que duñ ko banaliser aussi ah. waaw c'est c'est plus. Euh, voilà loolu laa wax sànq bu boobaa ndax am nga ay. indice fi ñu mën a jox sama gars comme ça ñu xam ni ñu koy lijjantee. Euh, lu gaz yi la soo ko ko lu gaz yi soor nit it nañ ko yëg. c'est clair donc la ñoom ñu dem foofu sax. ah sikkimu bi sikkimu pour ah, escorte ah buy génn waaw bu dee du forcément dafa war a génn Sénégal <laughs> noonu. maanaam génn nii maanaam génn ak mbuus yow gis nga fi gars yi daan génn fële mbuus wala du ah, génnee mais man de euh, ma jàmbal moo wax de ah. waaw ma jàmbal ma jàmbal moom ay dama ci dul. Euh, ah ñu waxoon gis nañ ko de. ah balaa mu ko waxamoon naa mais bon ma jàmbal daal noonu rek. Mm. mais de toute mm. euh, man génn Ousmane Sonko ak Diomaye. Mm. c'est c'est quelque chose de déjà acté donc promulgué loi mu jeex la. jarul jarul jarul kii donc de toute façon. Euh, campagne bi dina leen fekk ci biti wala xam naa gars yi nag campagne bi lañ bëgg dañuy xaar mu yëngu. Mm. mais bon euh, campagne yu weeru koor la donc coow du jëpp Sénégal ndox ñu mun tooñ. non parce que non dama dugg léegi ci Facebook bu fekk fa Fatou Baal di ma capturé di ci euh, sama Qatar yi. non Sénégal quoi vraiment jaaxal lañ moom. Fatou moom la xam naa moom la moom mooy def yooyu mais Fatou. maa tay <laughs> maa tay ah tu fais du Abbas léegi maa koor gi dem mi mais Pa Moussa ni mu tegalantewoo démb démb ñaata minute nga ma waxoon tey nekkoo ci loolu da daa mel waa ci lañ ah. <laughs> ah dañuy jeexal ni commencé dañoo dañuy jeexal ni. mu ne la mu ne la xam naa ne da xam naa ne ku ci nekk ci yéen am ngeen ay engagement ndogu ji. Ah, xam naa ko daal waaw waaw ñun ñëpp am nañu ah, engagement ndogu mais ñu jeexal ko rek Pa Moussa. waaw ah, jeexal bi mooy non ci génn bi ci génn bi. <laughs> génn bi c'est-à-dire ni mu teglantoo mooy. agent judiciaire de l'État xëy état na moom désisté na ca lële. Mm-hmm. ñu ne ñuy xaar promulgation pour mu génn mu dem. waaw xam nga aussi le link que les gens font de cette affaire là tamit xaw na ma jaaxal Euh, bii li mu désisté noonu en fait moom moom moo attaqué woon décision wu euh, tribunal d'instance hors classe de Dakar ouais. tribunal qui avait dit par l'intermédiaire de son président Ousmane Racine Thion mm. que ni radiation bi ñu radier Ousmane Sonko des fichiers électoraux c'est illégal nanu ko delloo ci fichier bi que la situation de contumace bi waraloon ñu radier ko cette situation n'existe plus elle est anéantie mm. euh, citer les dispositions pertinentes de du code de procédure pénale mm. qui dit que le contumax est arrêté et il s'est rendu donc il n'y a plus de contumax ju procès boobu dañ koy organiser waat. Hmm. loolu la Ousmane Racine Thior waxoon. waay ne léegi nañ ko dugalaat. Ousmane Sonko en dernier lieu ci euh, fichier électoral bi. Hmm. ñoom ñu attaqué décision boobu pour que usman Ousmane Sonko reste radié. waaye ñoom attaque boobu lañ désisté. lañ désisté waaw ñoo parce que loolu dañ ko je pense le 14 te du ñoo ko defoon. waaw ñoo attaqué woon dem hmm. ñoo ci génnaat luñ ci li ci nit di commentaire ñoo def wala boo nga laaj leen ñoom la moo waral ñu def dindi parce que en fait Ousmane Sonko la mu leen wax. déjà déjà président les déjà. justement jamais eu de ak loi promulgation. ma ne bu amee ah, gel nga ne déjà bu amee crispation ci ñoom la Ousmane Sonko yàgg na leen wax na seen dossier la de yéen a ko sombi yéen a koy naan yéen ko engagé yéen a koy désister bu léegi ci loolu la nekk moom ba léegi ngaangul ñoom ñoo doon def di dindi rek kon donc booy décrisper yow yaa crispé woon sa bopp ak sa décision bu kenn xamul foo ko teg te du ci lañ sukkandiku ne du ñu woon jox Ousmane Sonko fii ci parrainage am mm. ana ñu tey ñoo defoon ñoo dindiwaat Ousmane Sonko fa mu toog bougé wu fa la mu waxoon génnu ci. fekkuñu ko fa woon na fekkuñu ko fa. nee woon na leen dossier bi <laughs> seen dossier la. ah génnul ne fekk na. Euh, waaw fekk na la fekk na Ousmane xaw ma pour waxtaan ak moom. waaw après nag moom téléphone Ousmane moo leen wax ñu désisté. non waxuma loolu waxuma la da ne non da nga ne génnul waxul. waxul da nga wax fekk nañ ko fa. xaaral ma egg si fekkuñu ko fa tam. ñu ko fan. Cap Manuel non man non non non man li may wax man. maanaam je parle du dossier en question bul ma yóbbu feneen non non yóbbu ma dossier. waaw léegi bàyyi ko fi ma nekk rek non nangu. moom mooy yokk na fekk ñu ko fa. li ngeen ni moom mu yokkal na ne fekk ñu ko fa. waaw nga ni fekk ñu ko fa te fekk na fekk nañ ko fa nag. daa am ñu dem te fekk ñu ko fa tamit waaw am na ñu dem fekk ñu ko fa. mais am na ñu dem fekk ko fa lan moo waral ngeen di teggi waxu Jibi Gueye Ndiaye. Ah. moom laa téye de man teggiwu ko de. Ah. ah da ngaa jëlee fii rek ñu jëlee fee. waaw ma <laughs> xaw ma Pape jëlee fii. waaw ñun ñu jëlee fee. waaw léegi yéen fi ngeen jëlee tegu leen fa man doole ma bàyyi te mën nga interroger. dama ah kay. jërëjëf Ousmane Sonko waxul <laughs> waxluwul retiré wul demandé wul désistement lijjantiwul kenn. Hmm. yéen a defoon seen dossier ba mu saf sap. crispé ko ba mu saf sap. yëngal dëkk bi ba mu saf sab yéen a ci génnaat ba mu jeex tàkk. Hmm. di ngeen ko bàyyeeg euh, toogum kee mu toog. ñoom ñoo jël seen i pexe dugal ko fee. Hmm. ñoo defaat seen i pexe génne ko fee. lu tax gëmoo ma jàmbal jaañ. li mu wax nii na leen génn tey. man dama euh, lu tax ma koy gëm. non waxuma la ne du génn de. Ah. dama ne la génn beeg. tey tey la la fekk vous en faites un événement man loolu moom moo ma kiiwul. Ah. man mu génn tey mu génn suba mu génn ginnaaw suba mu génn barki démb mu bañ a génn ñoom ñoo defi paxe ba dugal ko fa. Hmm. nañ yi pexe ba génne ko kañ lañ koy génne ñoom seen problème la ndax kay ki lañ koy dugal ñu ko woon. du événement du man pour man ci man. du événement du événement. événement non man arab ah. bi gën a siiw Sénégal. arab fépp ci àdduna bi. mu tas fi ne Covid 19 waxal ah, sa événement la man laa sama dugal fa doomu jàmm. mais ma déglu bëgg a tooñar bi génnewaat ko ko man laa wax. dina ma bàyyi ma wax dina la bàyyi kay dina ma bàyyi ma nee na événement la bàyyi ko mu leeral. yow déglu ma rek xam nga daf ma tontu. dama ne du événement ci man. waaw yow na ne ci man événement la ah, rek. waaw d'accord waaye bul ma wax loolu nag man tamit sama événement ci man kii kii mais dafa poobaru ndaxaar nañu ñun dañuy wax lu ñu xalaat alors non je dis. tout weesu nga wax looy xalaat. weesu nga loolu sax yow. <laughs> bu ma ne da wax loo xalaat dama. non nan laa ko weesu. ah da ngay jox sa xalaat kay. maanaam yow la ñuy déglu de. ah non euh, j'ai pas compris j'ai pas compris lan. ngay wax. wala wala boog wala boog y a un mur qui là je dois pas lui parler. ma ah non non non. non a pas de pour man wax ji moo indi wax. Hmm. je dis tout simplement mënul nekk l'opposant le plus populaire. waaw ci Sénégal. Hmm. biti réew moo xam Afrique moo xam ci biti. Hmm. les gens parlent de lui partout. donc kooku suñu taxawee ba yëg ne day génn ñu ne ñu tel jour la ma Madiambal wax ko. c'est un événement c'est un événement. parce que bi muy dugg gis nañu coow li mu indi. ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakken en s'opposant à la décision bi ñu jël pour tëj ko kaso. kon kooku tey bu demee ba fii ñu taxaw ñu taxaw ne dañ koy génne yu bëri yi ñu tegoon ci kawam kenn waxatu ci. Hmm. donc tout simplement euh, dañu décider à un moment téye ne dañ koy génne mais oui. mais faut pas dañ koy dañ koy dañ koy. léegi pour lan aussi. man que tu me demandes lan moo waaw tu me demandes lan moo tax lan moo tax ñu koy génne. je serai kon dans le secret des dieux pour te wala mën nañoo téye rek waxi président li mu ne daal dañoo a jubboo. man ci dañoo a jàmmoo du ma bàyyee. xuloo ak boppam li nekk ci penc bi hmm. li ne fang. kenn jeexu man si loolu laa mën a wax. la nga xamante ne ma ngi ca géej ga wala mi ngi ci suuf wala hmm. mi ngi ci leneen. te ma ci wax. Hmm. parce que sama sama ñàkk maanu àggul foofu. ci li ma gis laa wax. su ma taxawee moment boo xamante ne nii décidé nañ ne dañ koy génne loolu laa mën a wax décidé nañ ne dañ koy génne. loolu mënuñu ko wax ba pare ci réew mi te nit ñi duñ ko duñ duñ duñ ne c'est un non événement. Hmm. non c'est faux. Hmm. Ah, parce que pendant combien d'années waaw xalaatam la yor waaw xalaatam la yor pendant combien d'années Pape Ousmane pendant combien d'années man déglootuma la sax maa ngi wax <laughs> damaa am discipline wax ak moom te duma la aat <laughs> interpellé waat ci li nga comme li nga wax dégg naa la pendant combien d'années ñu ngi wax ci ku tudd Ousmane Sonko sa à dire les gens ne pas benn matin hmm. te doo ko gis ci actualité moo xam nga jël quotidien yi hmm. moo xam nga seetaan télé moo xam nga déglu rajo moo xam nga xool site internet hmm. dem na ci ba euh, da ngay ne quelque part si les na ne parlent pas de lui. Mm-hmm. du ñu am benn visibilité. visibilité loolu man la sama xalaat la. may ma ma jël Ngone ma ñëw ci yow comme ça moom it mu wax ñu parce que moom mooy topp caravane bi Ngone maa ngi lay nuyu. jamono ji yaa ngi ci waaw yaa ngi ci caravane bi dañu ne dafa dem ba ci yoon bi di dëpp ndax dañoo yëg ni Sonko génn na ak Bassirou Diomaye wala lan la. en fait dañu woowoon euh, xëy ci suba dem fi nga xam moom mooy Thiès ak ci waaye dañoo xawoon a tardé fi mu ne nii ñoo ngi nii parce que leader yi ñoo ngi euh, ñoo ci biir cortège bi. Hmm. ñoo ngi nii ci rond point Colobane jubali fi nga xam ne moom mooy mbaaw waaye nag foog naa ne génn dëkk bi moom. Hmm. Euh, bokk na ci li ñu mébatoon ndax ginnaaw département bi nga xam def nañ ko démb mooy bu Rufisque aw si bi kotaan ak euh, yu ni mel. Hmm. tey dañoo waxoon a génn Dakar waaye xam naa comme ni ma ko xee Ousin xibaar bi nga xam ne sànq jot nañu ko wax rek ñu daal ne daal mën naa am tey jëlee ci conseil des ministres bu ñu promulgué. loi bi euh, peut-être que ne kii di Bassirou Diomaye fay ak euh, Ousmane Sonko dañuy ñëw ànd ak euh, coalition Diomaye ci li nga xam ne moom mooy campagne campagne présidentielle bi. Hmm. kon ba tey amoo dara lu. lu wàcc lu seetlu ci suuf ci waxtu waaw parce que ni su mel nii coalition bi nekk ñëpp ñu ngi hmm. ci biir cortège bi te yaakaar naa ne bu dara amoon itam ñoo peut-être duñu mën a génn Dakar foofu hmm. waaw sa ñooñu nag sa ñooñu amuñu dara luñ la wax sa ñooñu waaw fu mu ne nii nag ah. franchement xam nga da ngaa nekk direct fu mu ne direct sans sans limite da nekk ci un million d'abonnés ñëpp koy seetaan waaw ñuy xaw di def nag <laughs> yenn xibaar yooyu liñ ci mën a jàpp daal mooy eh. nañu nañu xaarandi nañu xaarandi daal pour le moment amul lenn loo xam ne daal leeragum na dañoo daal jot information ndax ñenn ñi lu ñuy wax waaye mm. leader yi ànd ak euh, coalition Diomaye ànd ak Ousmane Sonko parce que Diomaye Faye mm. présentement ñu ngi bu Colobane jubali mbaaw jubali ñu ngi lay ñaanal ndogub jàmm waaw ci kanam ñu ñëwaat ak yow incha allah ngoone ah mu ngi topp caravane bi comme ni nga ko waxee Ndeye Arame Touré kon ba tey dara seet na xaw ma nag gars yi ñoo ko defee noonu ba du ñu yëg ban moment la ñu wax ni après conseil des ministres président Macky Sall <laughs> annoncé nañu ni ma secrétariat exécutif national di lijjanti waa këram ñuy wax tamit après conseil des ministres ñu promulgué finalement soo moytul daal dañu ñu ñoo bàyyi ba ba ñëpp tëddi. <laughs> <laughs> ñu soog def li ñuy def am déet. ah journée bi kat vingt quatre heures la <laughs> vingt quatre heures lu ne mën na ci. waaw ah, lu na cee xew dañuy ba ba vingt trois heures cinquante neuf. bien minute buñ déggulee dara. <laughs> ñu doogay mën a teggi li nga xamante ne. moom la moom la ma jàmbal wax waaw waaye tant bés bi jeexagul. lu ne lu ne. xaj na ci. Mhm. waaw. Mhm. yaa ngi woon sànq ci ramp bi. waaw non waaw ci waaw. ci génnub Ousmane Sonko. Oh, yaa ngi yaa ngi laajte. waaw dem nga ci Ousin n'est-ce pas. waaw dem na. <laughs> lu tax nga poireauté buntu Cap Manuel. waaw pour xool bu génn bi lu mu. ngoonee nga ca coalition ma ca coalition génne parce que tout simplement bëgg nga am. <laughs> bëgg nga exclusivité justement. Ah, foofu laay foofu laay waxee ne xëy na. <laughs> loolu liggéey taskatu euh, xibaar la. nit yi nit yi nit ngi ñu ngi euh, bàyyi xel li nga xamante ne nii. Hmm. mooy li ñuy euh, teg. Euh, Ousmane Sonko. Ouais. depuis plusieurs années déjà. Mm. moo xam bu ñu jàppee deux mille vingt et ba léegi nii donc forcément bu lii amee nit ñi dañ ci dañ ciy taxaw. Mm. Euh, parce que c'est un acteur politique boo xamante ne mm. dans ses discours ñu bëri ñu ngi koy topp. ndaw yu bëri tamit mu ngi susciter espoir. Mm. ba ci léegi sax da gis ay mag yoo xamante ne on les met en exergue ci ay mag yoo xamante ne dans leur euh, propos dañuy yëkki ay kàddu ne am nañu yaakaar ci li nga xamante ne. diggee mm. na ko ak euh, askan bi. askan bi tey à travers son son son son donc mm. loolu moo tax ma ne bu génnee forcément les gens dañuy. Euh, yàq dañuy am dañuy yàkkamti mu génn ba bokk ñi mu farandool am mm. taxawaay bi nga xamante ne boobaak léegi ñu ngi dans l'attente te ñaan nañu wax nañu plusieurs fois dégg nañ leen et même à travers des manifestations moo xam sportive la moo xam politique la moo xam beneen acteur bu mu mënta doon mm. da dégg ci public bi ñu yëkki ay kàddu di wan ne bëgg nañu euh, ku mel ne son Sonko génnaat mën a saafonte waat ak askan hmm. mën naa génn Pa Moussa waaye bu kenn xalaat naan na bokkaat ci ay élections yu mel noonu nanu kon ne nu dem bien que dina recouvrer waat lépp loo xam ne ay droits civiques am la parce que amatul pratiquement benn condamnation bu dal ci kawam oui na génn accompagner euh, Diomaye mi candidat am comme ni président Macky Sall nar a il n'a jamais perdu ses droits civiques moom bu ma sukkandikoo ci décision yu mujj ci conseil constitutionnel. waaw loolu la ko éliminer. Euh, waaw à tort. parce que le conseil le conseil nous dit. Oui. que c' un élément postérieur. postérieur effectivement bu ko war a mën a yóbbu. alors oui. que un élément postérieur boobu la éliminer Karim Wade. donc man je considère effectivement que ni euh, musul musul perte ses droits bon boo xoolee même <coughs> avec cette vague de libération man doo mës a dégg libéré nañ diw ma naan wëy nangam nangam alhamdulilah man yooyu du ma ko mës def. je ne jubile pas de la sortie de quelqu'un injustement incarcéré parce que waru fa woon nekk même bu dee ñaari fan la fa doon ñaari fan de tristesse la war a doon pourquoi euh, voilà te ay doomi jàmbur ba heure bu la neex nga des familles des soutiens de famille yu war a seeni seen i njaboot nga tëj leen injustement yàq seen i liggéey yàq seen vie pour certains parfois ñu génn ak ay maladies. Mm. avec des traumatismes ça et la parce que je pense que am na ñoo xamante ne ma leen di dégg ci média yi ils sont traumatisés. Mm. si su doon ci dëkk euh, euh, Sénégal réew la euh, dañ leen di. utal ay psychologue yu leen topp. Ah. oui j'en ai vu cas yoo xamante ne c'est très sérieux quoi. <laughs> Ulay Mané <laughs> Ulay ak Azura c'est-à-dire daf ko yuuxu rek Ulay bëgg a daw plateau bi. mais wax nga dëgg Azura. ni ko gisee noonu tu penses non pour man pour man war nañ ko psychologue war na ko topp. Ah. seen traumatisant wax xale yi ñëwaguñ jigéen ñi et cetera donc moo tax man sortie yi moom. Hmm. boo bu ñuy tëj kenn injustement. laay takk rajo yi mais sorti non événement lay doon. non événement parce que euh, tooñ baaxul. tooñ baaxul te tooñ bi malheureusement et gravement dañ koy def au nom du peuple. Hmm. waaw sa tur yow mii nii bu ñuy tëj Sonko. sa tur lañ ko tëjee. kon am nga ci part de responsabilité il faut se démarquer euh, doxalin boobu ci Cheikh Mouhamadul Amin rahimullah Sidi laa ko doon gisee bu bis bu gisee lu mu d'accord. Hmm. moom li muy njëkk def ba ne lii sama tur lañ ko defee je me waaw looloo tax euh, surtout justice euh, buy doxee nu ni mel. maintenant one est en pleine euh, ci ci ci processus électoral processus électoral boobu noonu lu koy téye amut parce que y a des gens qui commettent aussi ces genres d'amalgame mooy Ousmane Sonko amaat na ay droit am kon bu tëggaatee day bokk. Hmm. déedéet déedéet déedéet tëggaat mënut am. Ah. na leer mënoon ne nañu respecter état de droit ba pare di salfaañewaat noonu euh, les décisions du conseil constitutionnel. qui ne sont pas susceptibles de recours. kenn mënu cee dellu ginnaaw même buñ mm. dissoudre. la ca des dañ ko yeggali suba incha allah digg penc. ah 22h na ngeen ñu xaar ak équipe bi bu ndogoo ba pare ñëw également. Euh, ci li euh, des ci actualité bi ànd ceeg yéen n'est-ce ak Ndeye Aram Touré mi nga xam te ne moom moo jiite équipe bi dama jamais eh? <laughs> da nga xew lu xew tey lu kii jëm ba <laughs> <laughs> man boobu nga nangoo dagg dagg affaire bi ànd ah la suñu ma ne léegi naa respecté li ngi ci 6 heures 18 euh, heures 6. bul ma ah, te war ngeen war ngeen a. sànq euh, duuf war ngeen. war nañ ndogu ji rek Pache. war ngeen ndogu ji war ngeen ndogu ji war nañoo. war nañoo ndogu ji madame léegi nag madame Diop. li ci des yéen <laughs> waaw. li ci des ci kàttanu yàlla bu ko jox vitamine. amul am nay vitamine ba pare ma maa ngi nuyu madame Diop bu baax. madame Diop madame Binta Diène vitamine pour tout le monde la. ak borom këram. waaw kay Jibril Diop. fële ca Dalaas sax pour ndey aram indaale ko parce que koor gi loolu. Ah, ndey aram mën na ah. vitamine mais yow nee na kenn doo laal vitamine yow. <laughs> madame Diop ko ah, wax dana leer <laughs> wax moo ko yónnee message naan dina ko yónnee moom vitamine waaye man du ma yónnee. ndax ndax ndax du na ma. loolu la loolu dama ko réew santam bi rek tax na ko bi. madame Diop sant bi macha allah ñu koy nuyu bu baax di ko bégee. di ko siyaar bu baax a baax a baax ak borom këram euh, ah. yi nga xamante ne franchement fu ñu ah, million yi yàlla seen di ñaanal ak ah. <laughs> que boo leen Sénégal yëpp war a abonné ñëpp war a ci saali wallaay di ngeen doo doon doo doon ko dabu n'est-ce pas Arame un million yi war nañoo nuyu ñoom Moussa ak li gi nekk bitim réew euh, waaw ñooñu aussi contribué nañ ci bu baax dañ naan la diaspora dañ naan la diaspora parce que euh, on a on a des retours ku mel ni Boubacar Diouf déjà mi ngi naan wax xaw ma li nga ragalee koor <laughs> ah da ngay wax li ngay wax rek fas sa kanam mi ngi Canada donc pour dire que il y a des il y a des gens qui qui suivent hmm. euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ba pare di ñuy encouragé hmm. ci ci taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi koy am ci ci ci kër gi donc loolu itam mënuñu lu dul di leen delloo njukkal ndax it nag Euh, kuy wax bëgg nga ko la déglu. Mm-hmm. kuy liggéey tamit di feeñ ci télé bëgg nga ko la seetaan. ku yor sa presse écrite tam bëgg nga ko ko lire. donc on a besoin des sénégalais pour liggéey bi euh, gën a jëm euh, kanam. kanam mu eh. nekk ñi ñuy gis certes mais mm. équipe technique la. waaw derrière ñi nekk sur le terrain ñi nga xamante ne ñoo ngi ci régie bi. di mm. jàpp ci liggéey bi. ñoom itam sonn ci loolu. di bëgg taaral pour mu rafet. Mm. yaa bu ndaw laay. yaa ndaw. <laughs> ak Thiago Silva man xaw moon Silva day liggéey ci Thiago Thiago ci kër gi <laughs> yooyu noonu donc euh, kontaan nañ bu baax a baax euh, ci euh, Thiago nekkatul Jacob léegi ci sénégalais yi ci safoo bi ñuy safoo sans limite Thiago léegi Thiago Silva men bu wax ah. <laughs> nu lu ko def Thiago Silva <laughs> Thiago la daal bu gënee yokk ñu jël ah nuyu nañ leen ñoom ñëpp di leen di leen remercier ah, nañu continuer di abonné parce que am na yeneen yoo xamante ne nii incha allahu rabbi dina dina teew ci tribune yi ak ñi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci kër gi. di jàpp ci liggéey bi. Mhm. loolu lay demee incha allah. nga ne ci ban heure la. suba 22h ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. na ngeen ñu xaar ñi yaakaaroon nag digg penc dafay bër. ci weeru koor bi ah ah attention koor wóorul de Abba Sow <laughs> barke rasulullah Abba Sow boo ko tegee ci Aliou Sow boo ko tegee ci bëccëgu koor day dog <laughs> paasan Seck ak kilifa suba incha allah dina ñëwaat li des ci actualité bi ñu ànd ak yéen boo ko tegee bëccëgu koor <laughs> sarab bi day yegg ma xel moom xaw ma ma xel mën na sori waaye bii baa moom day yegg <laughs> émission est-ce que war ah, yàlla baax na. loolu loolu gàll ngay war loolu yàlla baax na yàlla baax en tout ñu leen di gërëm bu baax di leen sant hmm. yéen doon bàyyi xel fii ci réew mi ak ci bitim réew di gërëm aussi technicien yi ci àndaloon ci kanam incha allah juste après ndogu beneen équipe dina installé wu ngeen ànd ak ñoom également ñu gunge leen euh, ci actualité yi li ci li ci des euh, incha allah bu ñu ndogoo ba pare lay doon ndey Aram Touré mu bëgg ma gaaw. wàccee antenne bi pour mu mën a euh, euh, doxi ah lijjanti ay ay ay mbiram ay Aïcha Touré maa ngi laa nuyu bu baax ah waaye bu ma ci jógee damay nuyu sama xarit bu baax bi Ceyna Ba Ceyna Ba maa ngi lay ziar bu baax Touré Touré bi ah lag ma diggoon daaw ak daawati jeeg ci koor gi incha allah naa ko dabu bu soobee yàlla mais jour boo xam ne aram du fa nekk gërëm leen ah, sant leen bu baax on se retrouve incha allah demain comme ni ma ko waxee ci euh, digg benn ci fii boobu on espère Cap Manuel mbir yi bougé Euh, ci secrétariat national exécutif exécutif national également mbiri bouge bougé fa ñu dem ci ay élection le 24 le maire gagne Sénégal dox ñu mën a nag lijjanti yeneen yi nga xam te ay enjeu la yu nekk ci kanamam jërë ngeen jëf.